souveraineté du Sénégal kon kan ngeen doon xaar kan ngeen doon xaar di jël qu'il est le soir du Sénégal. Son bi yoo na caravane yi moom xaw karawaan bu ànd ak ay rawaan la waaye bii alaaji dëcce bugguma ñeneen ñi mer nag waaye ndakaaru moom lii weesu nag karawaan di dëcce wax rek mu am solo mooy lii buñ ko sottee ci urne ak ñi ñu romb yépp ci yoon bi ñu génn seen kër ne ci trottoir yi ñi ne ci seen biir salon di seetaan gëm naa ni 90 di cent sax xeeb nañ ko ci Ndakaaru démb nag démb nag dama leen ne woon dinaa ñëw ba fii ñëw def fi déclaration li tax ma def ko provocation taxul ma def ko fii ñi ngi ci quartier boo xam ne am na ku ne moom moo ko moom xaw ma da koo donn ci baayam ba tax ba tax militant Pastef bu fi dugg ñu song ko dóor ko gaañ ko tey nag dama leen ne woon ñëw ba fii ñëw nañu ba fii ana waaja gis ngeen ni gis ngeen ni ay dragon police gis ngeen ni ay dragon police ñoo sécuriser këram pour bañ xam nga xaju balcon xaju balcon yàlla xam na ni waa ji amul fit musul am fit xamul fu fit nekk moo tax fu mu nekk mi ngi yenu tonu ngànnaay façon fetal bu nekk parce que fit la amul fit góor yombul de ñu tàllal la micro ngay mbël tey ñëw nañu ba fii man de su ma ko ne woon doo dugg Ziguinchor du dugg Ziguinchor su ma ko ne woon doo dugg Dakar du dugg Dakar kon nit ñi nañu delloo ci seen xel ku la ëpp doole mën na boo koy song da xaru ñun jàmm lañu woote lii mënoon nañ ko def def ko tey def ko ëllëg ba ajjuma bis bu ne ñu def ko ne ko doo fi campagne te du génn campagne loolu ñu mën nañ ko def waaye bis ni ci tey yewi nañ ko ne génn campagne kenn du ko dóor kenn du ko saaga waaye nag dina dégg Sonko loolu mënu ci dara yeewi ko est-ce que xam ngeen li tax ñu yeewi ko buñ lay duma ci urne yi bëgguñu nga am lay mooy li ngeen doon wax ci beneen waaja borom sàgg ba bañ ko jàppee Bakel yàlla xam na ni man yéegu ma président yéegul mais ñëpp dañ ne dimbale leen ngeen bàyyi ko mu génn ngir mu bañ a am lay participer ci élection yi bu génnee ak moins de zéro dina noppi wi suñ ko bloqué woon ñett ñetti fan ñeenti fan yi des ci campagne bi dina ne résultat yi génn ci urne yi dañ koo tere campagne moo tax moo tax ma ne bés ni ki tey yéen waa Pastef yeewi ngeen ko na génn ànd ak ñett ñeenti nit yi mu am dem campagne dimanche ñu xëy à 11h régler problème ci urne yi loolu mooy Pastef kon caravane bi am na solo karabaanu jàmm la karabaanu bu civilisé la gis nga Pastef bu dee moom rek dañuy karawaan ba pare sax nettoyé waat fi ñu jaaroon yépp kenn du fa gis mbuus buy traîne saaga du am xeex du am lii lañu bëgg wax waa Sénégal nun nitu jàmm lañu jàmm lañuy woote waaye nag jàmm tekkiwul ni da ngay toog ñu nekk sa kaw di la dóor di la gaañ cinq ans bu ñëpp dellu see fa ñu war a dellu politique bii rek la xumbal wax ci programme convaincre sénégalais yi ni ñu dem voté te nekk dellu këram loolu mooy politique am na ecole politique yoo xam ne yu amoon na Sénégal loolu jeex na fi nit ñi nañ ko xam école politique yoo xam ne warante dóorante gaañante loolu jeex na ci Sénégal kon yéen waa Pastef lii mooy message ma leen délivré ma délivré leen ko fii parce que symboliquement il ma ñëw ba fii wax ko fi symboliquement il fallait ma ñëw ba fii waa ji làqatu biir këram tëju nga xam ne fi mu ne nii ñemewul sax génn doxantu ñu délivrer un message de paix ne ko ñun yéene la dara lu bon waaye na nga nekk nit parce que boo nekkee leneen lu dul nit ñu traité la noonu te bëgguñu loolu ci yow bëgguñu ko sa njaboot Sénégal benn bopp la jàmm fi xëj nañu dem élection ci jàmm yëggale ko ci jàmm caravane bi nag mën nañ ko sax yemale fii parce que yéen parce que yéen da ngeen gagné ba noppi te suba xam ngeen ni journée bu gudd lay doon suba ñi nga war a commencé Sangalkam dellu si Kër Massar def Pikine tere ji waaye ci teraami jin bi gannaaw ëllëg ñu teel a xëy continuer dem def Vélingara def Médina Foura dugg Bignona man nag li ma jaaxal ci gars yi moom rek kenn demul Casamance nag dem campagne xam nga lu tax Casamance jàmm rek a fa nekk donte duñ fa am dara waaye nañu dem doxantu rek loolu yàqul dara ci campagne bi kon ñaari fan ak genn wàll wala ñetti fan yi des ci campagne bi lii mooy programme bi kon li ñu war a waxtaanee ci Ndakaaru pôle Ndakaaru nga xam ne mooy capitale Sénégal di vitrine réew mi di pôle boo xam ne dafa am solo lool ci développement Sénégal ñu leen di jox rendez-vous demain na ngeen a ñëw parce que bii dama bëgg ñu jël suñu temps bu ngeen ñëwee na nañu xumbal ci début bi mais bu waxtaan bi commencé nañu ànd ak tey ak dal ñu waxtaan ni fii mooy poumon Sénégal pour le moment ñu waxtaan ak yéen ci gis-gis ak ci xam-xam parce que waa boor bee nag bu ngeen gisee ñuy def li ñuy def yépp xam-xam gi néew lool njàng gi néew lool am na ci ñu bëri ñuy wax baccalauréat sax amuñu ko ndeysaan ñii naan homme bu mag la ñi naan man lii laa waaye xam-xam bee néew rek ñun nag xam-xam la bëgg a waxtaan ak yéen ci xam-xam lañ leen bëgg a tàggat parce que dans cinq ans dans dix ans vingt ans yéen ñii yéenay jiite réew mi réew nag li koy defar mooy teg wax waxu wax yu amul solo yu fële mais nekk ci li nga xam ne mooy farata réew mi ci mbay mi ci càmm gi ci napp gi ci industrie yi ci mine yi ci carrière yi ci infrastructure yi ci santé bi loolu mooy defar réew kon ci lii lañ leen woo fii mënoon nañ fi yemale caravane bi waaye dinañ ko continuer rek ba yegg fële ci croisement bi bu ko defee ngeen yeewi ju nag ñu joxante rendez-vous demain incha allah kon waa Dakar ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi leen di leen sant di leen jottali satisfaction leader yëpp. madame Maymouna Bousso mi ngi fii Boubacar waxtaan na ak yéen di félicité coordination départementale de la région de Dakar asalaamualeykum wa rahmatullah mu ngi noonu mbokk yi kon muy deuxième message bi nga ne moom Euh, benn une communication apaisante mu yëkkati ko nag euh, fii ci Baobab nga xam kon moom di. dañuy continuer ak yéen très rapidement euh, waaye itam. dégg suba bi donc. mu joxaale leen dig jee. incha